jéggi benn bokk yaakaar la ji ci élection yi ñu weesu fële ca Mali benn responsable mënu koo fàtte. nit nit rek la suñu gisee suñu biir kër loo xam ne dafa yàqu dañu war a dëggu changer ko jëmalaat defaraat affaire ñun dañu taxaw tem ne fii Mali 2024 incha allah président Amadou Ba. dina ko remporter au premier tour loolu loo xam ne la waxatuñ ko daf leen dañuy lam-lame. waaye nag tey daanaka ñaari at après loolu xel yi dalaat na ci ñi fare ci président Macky Sall ndax jàpp nañ ne juboo am na ci seen diggante. politique yombul et puis fépp a toujours des petits problèmes à gauche à droite des petits couacs mais heureusement que tey on s'est retrouvé autour de l'essentiel cest dire gagner les élections depuis le premier tour ici au pour la pour mi ngi sunu gannaaw. tey fi mu ne nii Benno Bokk Yaakaar moom yaakaar naa ne ñëpp mobiliser nañu derrière l' essentiel mooy maanaam le parti et puis laver de ce qui s' est la dernière fois. ministre Ablaye Seydou Sow moom ma nga naan li njiitu réew mi def fii ci Sénégal képp kuy sénégalais yaa xam ëllëk yaay nekk président wala déet jàpp na ne ci loolu ngay xool pour mën a avancer. li président Macky Sall def à la tête de l'Union africaine mu nekk la fierté africaine aucun président loolu kay sama waay doo am ku mel noonu loo ko bañ bañ bañ mais république dafa am war nga am fierté war nga am fierté te fii ak 50 ans lépp luy dox Sénégal Macky Sall moo ko tracé. waaye nag ngir nguur gi mën a des ci loxoy APR faw rek déggoo am ci diggante ñi bokk coalition benn bokk yaakaar. jërëjëf ak président bu fi mënta nekk ëllëg yàlla rek mooy xam ku fi nekk. man nag maa ngi ñaan yàlla mu nekk Amadou Ba. ñu booloo nekk benn sénégalais yu nekk Mali balaa ñoo am doole ñu booloo nekk benn ñu ànd ñu ñu raxas xol yi ñu bañ a iñaanante ñu bañ a soxorante ñu xam ne nous avons le même pays enu nous avons un très grand pays. Abdoulaye Seydou Sow moom léegi mi ngi bëgg a tàmm ay dëgg yu muy wax waa Benno Bokk Yaakaar na mu ko defee woon ca Gàmbi loolee la defaat fii ci Mali.